ak jàmm ñoom ñu ne nag di ay patriote bokk ci parti boobee ñu wax Pastef les bu kii di Ousmane nag la nga xamante ni décidé woon nañ ko gannaaw événement yi amoon fële ca Mbàkke xam ne nag ñoom parti bi dañ faa bëggoon a def ab meeting loolee nag ñi tere leen ko préfet bu Mbàkke tere woon leen meeting ñu mel ñoom nag ñu noon force danañu def seen meeting gannaaw ba la fa tukkee ci ay événement yi nga xam ne am na fa bokk na ci la ca gën a fës muy seen leader di Ousmane Sonko nag ñu gis vitrine oto la nga xam ne moom la ñu ko def mel ni dañ daal dañ fa sànni ab grenade lacrymogène ñoom ñu ne nag ñu ne seen xel dalutoon waaye gën na teey ci sécurité ki nga xamante ni moo di seen leader di Ousmane Sonko naka noone buñ ci toftalee li nga xam ne ay fan ci ginnaaw le 16 février bi la ñu génn moom mi la di Ousmane Sonko seen leader nag ba mu demee di wuyu ju fële ci tribunal bu Dakar procès waroon a dox ci digganteem ak Mame Mbaye Niang procès en diffamation ci dëpp ga la nga xam ne xew na fële ci corniche ba ak otoom beneen dem tiital gu événement yooyu yëpp nag tiital patriote yi leen nag buñ co deftalee loola ñu leen di wax rek xewoon ci corniche ba vitrine Ousmane Sonko nag ñu gisi force de l'ordre yi euh, tojee ko génne ko cotam par force su nag tax ñu ne daal seen di fi ñu toon nekkatul ci benn sécurité te ñoom seen sécurité ñoo koy teel seen bopp loole nag waral loon ba ci njiitalu ki nga xam ne moo di Ousmane Diagne ñu gën ko xam ci Ousmane Diagne ab post mu defoon ci Facebook lancé nag li nga xam ne moo di Kopar Express bu ñu ubbi ak ay numéro yu ma defoon jàppale na ñoom patriote ñi ngay woy di eh, dajale ndax daal si Kopar Express dong am nañ fa lu tolloog vingt un pour cent ci objectif bi ñu fixé woon muy dajale cent eh, mu mën a gën a mën i francs yu nga ñoom patriote yi dajale nañ ko loole nag bokkul benn yoon ak li nga xam ne mën nañ ko compte ca Wave ak Orange mu nekk yeneen numéro ya ñu fa joxe woon Corporate Express bi rek lu tollook dix mille cent soixante seize personnes muy fukki junneeg téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn doomu aadama ñoo fa dugal ceenum xaalis ñu dajale ko muy trente deux millions six cent dix neuf mille sept cent quatre vingt et un francs loolu ci Corporate Express dong la ko ñi di yi dajale gum bokkul benn yoon nag ak li nga xam ne mënees na koo compte ci numéro yi ñu dugaloon numéro yooyu nag di Wave ak Orange Money nga xam ne xaalis mën na fa jaare kon jàpp leen daal fi ñu toll nii patriote yi ñoom décidé nañ bu baax a baax sàmm kaaraange ki di li seen leader di Ousmane Sonko loole waral naka ñu ngay woy di dajale xaalis nag ñoom daal ci seen i kàddu nañ seen leader nekkul ci benn yoon sécurité ko otom bobe moo tax ñu bëgg koo jëndal ab oto berende bu nga xam ne jàpp nañ bu ca nekkee buy génn di def déplacement dugg ca moo ëpp sécurité ci moom ba tax na ñu ngay woy di dajale seen i million ngir jëm koo jëndal ab oto bu nga xamante ni day jar eh, gën caa néew cent cinquante millions loolu nag jàppale ne bu ñu gisee ni mbir mi ni demee mel ni léegi tey lii la di patriote yi eh, atteindre seen objectif maanaam dajale xaalis bu nga xamante ni danañ ci mën a jëndalee seen eh, leader Ousmane Sonko ab oto blindé bu nga xamante ni a mën a nekkee sécurité ci oto bi nga xamante moom la nekk ñi gis la fa xewoon ci Touba ni ñu def vitrine oto mag li amoon ci corniche ba nañu ko tojee loolu yëpp buñ ko dajalee ñoom ñi gën di tiit ci sécurité kii di seen leader ba tax